Bonjour, comment ça va et comment va la santé dikkaat ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllum wér-gu-yaram beneen yoon ak petit cola petit cola mi nga xam ne dafa baax lool ci suñu wàllum wér gi yaram ndax bëri na ay xeeti jàngoro yoo xam ne petit cola da koy faj bu ne tamit yaa ngi am li nga xam ne moo di fibrom dool jël petit cola di ko booleeg layduur ak di ko booleeg layduur ak sungufu ñaan eh, di ko def genn wàllu kaas di nga ci gis fibrom boobu njariñ li nga xam ne ne am na bu fekkee ne tamit yaa ngi am diabète del jël petit cola di jël benn doom bi da ngay daal di gis tamit njëriñ bi nga xamee ne am na ko ci diabète boobu ñenn ñi sax dañ naan bu ñu amee diabète dañ leen di tere li nga xam ne moo di petit cola waaye petit cola nee nañ am na njariñ bu bari daal ci li nga xam ne moo di diabète bu fekkee ne tamit da nga amee wàllum saan def boo añee ba pare nga xaaj doom bi di ko yëy da nga daal di gis tamit ni muy rayee saan boobu yi bu fekkee ne tamit da ngay seere del jël li xam ne moo di petit cola di jël doom bi di ko yëy te bañ cee nag di ko euh, def lu doom del yëy bi saa su ne bu yàggee da daal di gis seere boobu yi ñu ci amee njariñ bu fekkee ne tamit da am néew doole ci sa wàllum néegu sëy del jël li nga xam ne moo di euh, petit cola ak junjeer boole leen euh, boo amee nag sungufu petit cola bi moo gën nga boole ko ak junjeer bi bi di nga ci daal di gis tamit njëriñ bi nga xam ne am na kon petit cola ñu waxoon leen ne am na njëriñ yoo xam si ne bëri na ci ci nekk ak yeneen ak yeneen xam si ne dañ leen tànn loolu lii leen ko ci mu nekk loo xam si ne bëri na ay njëriñam yoo xam si ne mën na koo faj ndax euh, bu fekkee ne ci biir bi mën na ci andi tamit ay njëriñ yoo xam si ne am na ko lool ba ci dañ naan jigéen ñi nga xam si ne sax dañuy taxaw buñ dee jël petit cola dina leen dimbali ci loolu kon njëriñul petit cola ngoog jërë ngeen jëf mbokk ñu di leen jox dig daje ci beneen yoon. toppatoo war na ca dañu leen war a vacciner aar leen ci jàngoro yi dañu leen war a vacciner aar leen ci jàngoro yi dañu